awaluha aj jëkk seen al imaanu mooy gëm tuma saani topp aj ñaareel ja ani salaati walis julli fusta yal na nga tuufu bil imaani ci gëm taalisuha aj ñetteel seen azakaatu mooy azaka tuma raabi topp aj ñeenteel ja xan sawmi shahril fardi walis woor weeru faratawa yaada saamihu yow jile aji dégg alxaju aj wala xumratu ak xumra xindal xaami si nekk na fa aj juróomeel ja wal xuslu cangaay wal wuddoo ak njàpp xinda saadi si nekk na fa aj juróom benneel ja saabi xuxaa aj juróom ñaage seen birruka mooy sa topp waali day ni yaari waajur wasilatu raximi ak jokku bokk dugg na may na ci dul fen ne taxawaay ba nga xam ne fa la ñu njëkk taxawal nit ca siraat lañ ko fee laaj mooy gëm ndax mataloon na aqi gëm taxawaayu ñaareel ba ñu laaj ko fa julli ndax mataloon na àqi julli taxawaayu ñetteel ba ñu laaj ko mbirum asaka ndax taxawoon na ca nam ca war a taxawe taxawaayu ñeenteel ba ñu laaj ko woor ramadan ndax daana ca taxaw nam ca war a taxaweem ndéet juróomeelu taxawaay ba ñu laaj ko mbirum aj ak xumra ndax defar na ca waru garam nañ ko ko sante taxawaayu juróom benneel ba ñu laaj ko wàllu laab muy sangu farata ak njàpp nu mu ci daan defee ndax awoon na ci yoon wala déet ba ca mujj nag muy taxawaayu juróom ñaareel ba dañ ko cee laaj ba xam nu mu toppe woon ñaari waajuram ak nu mu jokke woon ak mbokkam kon juróom-ñaari taxawaay yi mooy yi nga xam ne ku aw siraat ku ne foofa toll rek ñu taxawal la laaj la lañu la war a laaj soo tontoo yépp yépp nag jàll wi àjjana bu fekkee ne nag moom tontuwut subatul rek dal daanu ca sawarawa du jota jàll faslun li ab dog la fii man ci ña nga xam ne laa yóbbu laa déeful ràppal aj saamuhum seen yaram fil xabri ci bàmmeel am na ñoo xam ne seen yaram du ràpp maanaam suuf du lekk seen yaram ca bàmmeel ya kon dog bi dafay wax ñi nga xam ne suuf du lekk seen yaram loolu mooy seen yaram du ràpp ashrun fukk minal ashxaasi ci ay jëmm laa yu xarra bu deful ràppal ajj saamuhum seen yaram fil xabri ci bàmmeel yaa mu jarribu yow aji nattu ji al ambiyaa u yonante su maalimuuna topp way xam wa shuhadaa ak way deeñ ci jihaar tumma mu addinoona topp way nodd ne fukki jëmm a ngi nii yoo xam ne suuf du lekk seen yaram seen yaram suuf du ko lekk kam ci njëkk a tudd nag mooy ab yonante ka ca toppaat mooy ku xam te jëfe la mu xam ñetteel ba mooy ku dee ci jihaad mooy ba kanam des ci yëkkati baatul islaam ñeenteel ba nag mooy ab noddukat wa xaamilul quraan yi ak aji yanu alquran maanaam rek ku man alquran te di ko jëfe boole ja ba tey suuf du lekk yaramam wal xaas yi ak aji xare ma xan boole seen maanaam kuy jihaad ci yoonu yàlla doonte sax bakkanam desu ca it gannaaw la door a faatu ba tey rek suuf du lekk yaramam suma imaamun topp ilimaan aadilun ci di aji maandu faltas maxan na nga dégg ku jiite jullit ñi atte leen ci alquran ak sunna maandu rek tegu ca yoon wa kooku day moom it suuf du lekk yaramam wa mar atun ak jigéen mu'minat ju di aji gëm ani danaa jublu allati ya nga xam ne maatat faatu na la daa wilaadatin fa ak jur maanaam fa am doom xus jàppal nukkutati sama sew-sew bi wa mu'minun ak aji gëm xot ci la jot rayeef na ko madlooman mbir mu mi ku ñu tooñ xul waxal aw man wala koo xam ne maata faatu na fil jumhati ci ajjuma rawaw netli nañu kullazi lépp ci lii jigéen joo xam ne ku gëm yàlla la ku taxaw ci àq yàlla la doon am doom nag far faatu ci am doom nga kooko day suuf du lekk yaramam lim waxagun ci wàññi juróom ñett la juróom ñeenteel bi nag mooy ku gëm yàlla ñu rey ko rekk ci tooñ deful dara lu ñu ko war a reye kooku ba tey suuf du lekk yaramam bu demee ca bàmmeel ba ca mujj nag mooy ku faatu ajjuma mel na ne moo xam ci guddi ga la moo xam ci bëccëg ba la kooka day suuf du lekk yaramam bu demee ca bàmmeel kon fukki ñaangook faslun li ab dog la fii abuwaabi niiraani ci bunti sawara ya aha danaa yàlla nanu musal allahu yàlla min haa ca ñoom day bëgg a tudd nag bunti sawara yi lin naari ñal na sawara sabaxatul abuwaabi juróom-ñaari bunt faalam na nga xam bila tara durin ci lu déng-déngi walartiyaa bin du caagéen ak sikk ena sawara am na juróom-ñaari bunt xaawiyatun xaawiya suma jaximun topp jaxim fa saqaru topp saqar suma lazan topp laza xutamatun ak xutama falta tabir na nga xalam suma saxir topp saxir baax daxaa nekk na ci seen gannaaw jahannamu jahannam saabixatun niiraani mooy aj juróom ñaari sawara ya tuub tuubal yaa mujri muy aji tooñjee yeena turi bunti sawara yi maanaam turi sawara yi rek ñu ngi noonu muy juróom ñaar xaawiya jahim saqar muy ñett laza xutama muy juróom sair jahanna muy juróom ñaar faqila waxees na ne waxitat diggeef na dëxaleef na xaawiyatun xaawiya lil munafiqina ñeel way naafiqiya waxuma te moom xadis na ab hadis la xat sabata boobu sax na xaawiya mi nga njëkk wax wax ne ne naafiq yi ñoo ciy jëm te te neen loolu am na hadis bu ko wax bu wér amal jaxiim daal jaxiim fali mushrikiina ñeel na way bokkaale ñu war a ci mbindeef yi nee na ñi bokkaaleel yàlla ci doomi aadama yi ñoo war a jëm sawaraw jaxiim saqaru saqar li saabina ñeel na way jaamu malaaka ya ab kuréel lañ boo xam ne ñoo bàyyi ko ci yahood yi wëlbatiku nag di jaamu malaaka yi ama laza ndaal laza faqila waxees na ne li raji mi ñeel na saytaani ma ñu jam wa jundi ak kuréelam naxoo du dana nu muslu bi rahimi ci aji yërëme ji sawaraw laza moom nee na saytaani ak i gaayam ñoo ci war a dem xutamatun xutama kul waxal ne wuqida taaleef na ko lil yahudi ñeel yahudi suma saxiru topp sawaraw saxir waxidat dëgaleef na ko dig digeef na ko wala dëxaleef na ko li nasara ñeel nasaraan ya yahood yi ñoo moom xotama nasaraan yi ñoo moom saxir amma jahannamu daal jahannam mahadallahi noo ngi ñaan yàlla musalunu ca falil xusaati ñeel na way mooy ña ci jullit ñi kul waxal bilash ci baaxi jullant jahannam nag nee na ñi mooy yàlla ci jullit ñi te yàlla baalu leen ñoo war a dem jahannam faslun di ab dog la fii abuwaabil jinaani ci bunti àjjana add xalanaa yàlla nanu dugal allahu yàlla fiihaa ci bunti àjjana yooye waxad xaddoo lim nañu tamaaniyal abuwaabi juróom ñetti bunt li jannat ñel àjjana aydan ba tey belartiyaa bin ci dul benn sikki sàkka xaddoo daal gi dafa cosaanoo sàdd waaye nag fii moom boo ko fi sàddaa way wi day ëpp buñ defoon nag haddoo samaniyan min al abwaabi mu daldi yem képp ba tey nag xëy na kon mën ngaa jàng rek waxadd xaddoo bañ a sàdd daal gi nee na àjjana am na juróom-ñetti bunt mu wax nag àjjana ju ne ña cay dem gannaaw bu waxee turi àjjana yi ba noppi daaru salaami ba ci njëkk mooy daaru salaam ba adaxaa nekk na ci gannaawam daarul jalaali daarul jalaal wa jannatul ma'wa ak jannatul ma'wa wuqiita yàlla na fegaleef la min dalaalin gépp réer wa jannatul xuldi ak jannatul xuldi wa jannatu naayimi ak jannatu naayim wa jannatul firdawsi ak ajana firdawsi fusta yàlla na nga tuufu bi naayimi ci xéewal ga saabihuha ak juróom ñaareel seen jannaatu xaddinin mooy ajanay sax ja ajana ñu tudd rek jannatu xaddina tajri dana daw min taxtihaa ci seen ron al anhaaru dex ya te xadbul xamri aji neexi sàngara mooy dex ya cay daw mbaa boog genn la ca wa ba adaha nekk na ci gannaawam moom jannaatu xadinin fiimaa ca la nga xam ne xakaaxu nettali na ko alxibru foore ja daarul xaraari daarul xaraar laa xaraaka yàlla bu la gaar al wisru bakkaar turi àjjana yi nee na mooy daarul salaam daarul jalaal jannatul ma'wa muy ñett jannatul xuldi muy ñeent jannatul naayim muy juróom jannatul firdawsi muy juróom benn jannatu xadnin muy juróom ñaar juróom ñetteel ba nag mooy daarul xaraar awaluha ajjëkk seen al axlaa ji gën a kawe lil ambiyaay ñeel na ñañ solo wal mursalina ak ñañ yónni bunal imtiraaji lu werante nee na àjjana ji nga njëkk a wax muy daaru salaam al ambiyaaw ak al mursaloona ñoo cay dem al mursaloona mooy ñi yàlla wax yu te digal leen ñu jottali al ambiyaaw nag mooy ñi yàlla wax yu te joxul te joxu leen digalal jottali wa shuhadaay ak way deeñu ci jihaar wali saalihin ak ñel way baax kasaani ki ni xakaahu la ko nettalee baadu xaari fii na lenn ci way xam ba tey shuhadaa yi ak saalihoona yi ba tey ci àjjana boobu la ñuy dem muy daaru salaam taabihum waa aji topp seen li man ñel na ka nga xam ne yusal yi dana julli mukk mi leen mbir mu muy aji matal lil wu dooy ñeel njàpp ma bilaa xadis njulul waxtaanu àdduna musjalan ak lu mën di doon nee na àjjanay ñaareel ji ka cay dem mooy koo xam ne bu dee jàpp day téye làmmiñam bañ a wax waxi àdduna te bu dee julli itam di matal julli ga bu baax daaru jalaal mooy aji ñaareel ji taalisuha aji ñetteel seen yedd xuluha dana ko tàbbi waaye nag yedd xuluhoo mu gën a dëppoonteeg taalisu ci nim ko indee almadkoroona ñañu tudd bi tiibati nafsi ci teyu bakkan hum ñoom almaarofoona ba tey ñooy ñañu xam bi tiibati nafsi ci teyu bakkan ñetteelu àjjana ya ña cay dem mooy ñi nga xam ne dañoo neex deret néewaana ñuy naqaroo ludul ak mooy ñooñu ñooy dem ci àjjanay ñetteel ja te moo di jannatul mawa waaye nag mënees na koo xoolaat ci fa ñuy tuddee xeeti àjjana yi ba xam ñan la ñuy firee al mazkuruuna bi tiibati nafs daan ko xoolaat feneen incha allah raabihuha aji ñeenteel seen li amirin ñeel aji digle bil xayri ci aw yiw naaxin ku di aji tere anil munkari walis lépp lu bon xul waxal ne wa dayri ak lor àjjanay ñeenteel ji ña daan digli lu baax di aaye lu bon ñoo ciy dem kooku nag mooy janatul xulli ndax weesu nga yet daaru salaam daarul jalaal janatul mawa ñeenteel ji nga toll nag mooy janatul xulli xaamisuha ak juróomeel seen li man ñeel na ka nga xam ne naxa tere woon na li naf si ñeel bakkanam xaan shahwatin walis ab bànneex intaha mbir moom yemoon na inda xudóodin fa ay daytal waaw nee na àjjanay juróomeel ji te mooy jànnatu naayim ku daan téye bakkanam bañ ko topp ci lam bëgg xanaa taxaw ci dayali yàlla yi fu ko yàlla digal seen ko fa fu ko yàlla tere du ko du ko fa seen di wëlbit bakkanam fu mu toll ñu mel noonu ñoo war a jëm ci àjjana juróomeel muy jànnatu naayim saa di suha ak juróom benn seen xul waxal ne lil xujjaa ji ñeel na ajkat ya as saali kiina ña di way soobu tariqat rashadi yoonu jubwa wal mo tamirina ak way umraña juróom benneelu àjjana yi nag ña daa ajak umra ñoo cey dem kooku nag mooy jannatul firdawsi saa bi waa ajuróom ñaareel seen waxida digeef na ko lil mujahidina ñeel way jihaar ña kama xukki ni ki nettaleef ko an shiyoox jële ci sëriñ sa al muhtadin al muhtadina ña di way jub juróom ñaareelu bunti àjjana yi ña cey dugg mooy ña daa jihaar ci yoonu yàlla saaminu xaa ak juróom ñetteel seen li man ñeel na ka nga xam ne yaxuddu daana damm attaru fa gis ba xanil maxaarim wëlis yu araam ya fanaa ina nga sorenteeg alxul fa woor ab dëxal juróom-ñetteelu àjjana yi nag mooy daarul xaraar moom ñi daan téye seeni bët bañ caa xool lu ñu wërta xool ak lee mu ca teg mooy woyof xal te muy def alxayraat yi ya mislal birri kem ak topp lil waali déedi ñeel ñaari waajur ya waka kash fi durri ak niki wuñu lor kon àjjana yi juróom-ñetteel muy daarul xaraar ku daan téye say bët bañ cee xool araam di góorgóor ci def lu baax mel ni topp sa ñaari waajur ak teggi tiis suñu amu tiis kii ak ku mel ne moom ñooy dem daarul xaraar faslun li ab dog la fii xaddadi sukkaanin araaf yi ci limu way dëkkee laaraaf laaraaf dañu ne ab làkk la bu dox diggante àjjana ak sawara xam ne neexiwul ne àjjana waaye naqariwul ne sawara ñi ci dem nag lay bëgg wax xat xudda limeef na zawol axraaf yi waroom laxraaf tis xatan ñu juróom-ñeent min duuni mi deen ci dul benn werante la dal aslaaf la dal aslaafi fa way jiitu ña ña war a dem laxraaf moom nee na wax ne ne juróom-ñeent lañu alkaafiru yéefar ba almiataaw ba di joxekat xat yexa bu daana maye jiddan lool ab yéefar bu tabe lool lool daan joxe lool lool laxaraaf lay dem nee nañu du dem sawara fal xaalimu topp aji xam ja albaxiilu ja aji nay xul waxal ne intasaba askanu na laxoo jëm ci foofu ba tey laxoo jëm ci moom ba tey nee nañ koo xam ne xamoon na waaye dafa nayoon ca xam-xam ba waaw ba tey kooku laxaraaf lay dem su mataman topp ka nga xam ne xaafa ragal na al ilaha buur bi rabbana mi sunu boroom wala mu yëkkunte nekkutoon muhsinan di aj rafetal li waaliday jëm ci yaari waajuram ba tey koo xam ragaloon na yàlla di ko topp bu baax waaye nag dafa sàmmutoon bu baax rafetal digganteem ak ñaari waajuram ba tey kooku laxaraaf lay dem wa maratu ak jigéen kaanat joj nekkoon na xaamilatan di aji jëf lillahi ngir yàlla wala mu yëg wala mu takkunte nekkutoon xaabilatan di aji nangu kalaama zawjin wax yi jëkkër ba tey jigéen joo xam ne daana topp yàlla waaye daa déggalutoon jëkkëram kooku ba tey ci wàll anraaf la kasaaka naka noonu xabdul ab jaam yaa budu bopp daana jaamu rahima aji yërëme ji wala mu yëkkunte nekkutoon rahima di aji yërëm di sayidi ñal ab sang jamonoy jaam amee jaam boo xam ne daana jéem a jaamu yàlla waaye du sàmm àqi sang ba ko moom nag ah kooku ba tey lanraaf lay dem wa wala du sina ak doomi njaaloo lëwoo mbir moom ñeel na ko diinun diine sarihun ju di aji wér doomi njaaloo yoo xam ne am na diine bu baax a baax ba tey kooku laxaraaf lay dem moom nag xamuñu lay wañ wax ba tax ne moo ko war a tax a dem laxaraaf ndax boo koy seet day mel ne waajur yi xëy na ñoo sabab sabab si moom daal doo xam la mu def dëgg-dëgg ba bokk ci waa laxaraaf su ma tam uminun topp aji gëm lisaanu ko làmmiñam wa xabiixun aji bon la koo xam ne gëm na yàlla waaye dafa ñaaw làmmiñ ba tey kooku ci wàllu xaraaf la man lam yëkkun koo xam ne nekkutoon yab luxuxoo di ko jot arasulu wooteeg yonante bi fii daxarihi jamonoom on du dan xu nanga ko limaale yaa xal yu lu yow xarit bi koo xam ne dund na ci ab ruq ci àdduna te mësta dégg ne yàlla yebal na bi yonante muy woote mu dund ca noonu ba faatu ba tey kooku laaraaf lay def wal kaafiru ak yéefaru ba almawloodu ba di buñ jur xat xalaka mbir mu alku na fii xaalil wilaadati ci waxtu juddu wa parti son juróom-ñeenta ngoog iqtafi na nga xentu zali yéefar bu juddu rekk daldi faatu ca ba muy juddu moom it ci waa laaraaf la bokk moo leen juróom-ñeenteel mel na ne kon ndeyam ak baayam dañoo nekkoon di ay yéefar ba muy juddu nag mu daldi far faatu fa saasa xam ne yàlla xamal na ne moom bu doonoon mag it ab yéefar lay doon kooku laaraaf lay dem xonaa fii intaha la jeexe nazumul xubaydi wayuk njaam sax almurtaji kay aji yaakaar xafoon njëgal min rabbihi tukkee ci boromam wa fatxal murtaji ak ubbi lañu tëj al murtaji bu njëkk bi day am yaa bi ci mujj ci way bi moom du am yaa wa fatxal murtaji fi la baat bi yam nee na foofu la mu lay nus dóor yam njaamu si yàlla si ko doon taalif nag mi ngi yaakaar njëggal ci boromam di yaakaar yàlla ubbil ko lépp lu tëju woon bi xus ni xaw ni dil jalaali ci rafetuk ndimalal borom màgg ga assamadi kadi ku jubli ci aajo rasun te rasun lay tollool minal ab yaatu ci ay bayt xaama chara dadin ci atum chara dadd chara dad siin bi siin bu tooy bi junni la raa gi ñaari téeméer la daat gi juróom-ñeen fukk la juróom-ñeen fukk moom daat gi daal gi doon ñeent kon mille deux cent quatre-vingt-quatorze la woon ci gàddaay gi mille at moom la ko taalif bayt yi mi ngi tolloog araf yi nekk ci rasxun raa gi ñaari téeméer la saat juróom benn fukk la xaa juróom-ñett la kon muy deux cent soixante-huit raa gi ñaari téeméer saat juróom benn fukk xaaloon ko juróom-ñett noonu la toll ci ay bayit ñaari téeméer ak juróom benn fukk juróom-ñett musalliyen mbir mu muy aji julli xalaa xatiibil umami ci aji xutba xeet ya wa alihi ak ñoñom wa sahbi ak saxaaba ya xeyril umami ñi jadi ngën ji xeet ya wa ahmadu te maa ngi dellu sant allah yàlla xalaa takk mii lii ci sama matal mu layyi na sudóori mu layyi na sudóor bi taj mii li ànd ko rafetal nee na mi ngi sant yàlla ci téere bi mat na lépp rafet fa mu tàmbalee ba fa mu yem kon mi ngi sant yàlla ci àgguk téere bi te dellu di julliwaat ci yonante bi yàlla na ko yàlla dolli salaatu ak salaamu mook ay mbokkam ak i saxaabaam ba faaw. xikmatun lii xikma la baalixatun bi aj dem dayo min xaami jay sasin tàmbalee ci atum jay sas ilaa xaami wam sasin ba ci atum wam sas fii maa ca la nga xam ne xooti ba waxanteef naa moom bi ci moom minal aayaati ci ay laaya wa zikri ak alquran alxakimi ji aji bari xikam xinda muxaalatati aada illahi fa jaxasonteeg noonu yàlla yi taxalaa kawe na at mi sëñ bi tàmbalee am leen teeg tubaab yi mooy atum jaysas 1313 at mi mu génne àdduna mooy wamsas 1346 te ba mu tàmbalee am leen teeg ñoom ba ni mu génne àdduna am leen te bi mës sa jeex tàkk-tàkk benn yoon day am jamono yu mu gën a doy waar am jamono yu mu gën a woye fi tuuti rek waaye moom ak génnam àdduna rek moo ko teqaleeg am leen teeg tubaab yi ci diggante boobu nag li ko fi yàlla waxanteeg moom ci lu bokk ci alxuraan moom la ñuy bëgg a wax wa awaluma aj jëkki la nga xam ne xooti ba waxanteef naag moom bi ci moom mooy wa id yamkuru fàttalikul bay fexeel bi ka ci yow alladina gaa ya nga xam ne kafaroo wedd nañu di yus bitoo ko ngir ñu tëj la saxal lay firi waaye mooy tëj rek aw yaqatuloo ko wala ñu lay rey aw yuxrijoo ko wala ñu lay génne nee na liñ njëkk a waxanteeg sëñ bi tey lu ñu waxante woon nag sangam ba njaatigeem la mooy rek wa id yamkuru bi ka alladina kafaroo maanaam ba yéefar ya toogee di seet sa mbir ba xam nuñ cey def ndax dañ lay tëj ci benn béréb nga bañ a génnati mukk am dañ lay rey am dañ lay génne loolu xam nga ni nga xam ne moom la dale woon yonante bi noonu la ko yàlla dogalee ci sëriñ bi ba tubaabee toogee ca seen bureau yett yi leen doon xalaat ñu mujj nag seen pexe jooy ci génne ko yóbbu ko fu sore sori foo xam ne kenn du ko fa mën a fekki wa maxallu liqaayi bérébu tase ga nag lañ fi waxanteeg moom mooy yaa ayyuhal lazina yéen ñi nga xam ne aamanu nee ngeen gëm ngeen ida laqitum dem tase ngeen nag allazina ñi nga xam ne kafaroo weddi nañu zaxfan mbir mu ñu woy mës-mësi falaa tuwalluuhum bu leen leen féetale al adbaara gannaaw ya bu leen daw nee na bi sëñ bi njëkkee taseeg ñoom nag ci jeewal lañ waxanteeg moom sëriñ bi ci alquran mooy yéen ñi nga xam ne nee ngeen gëm ngeen bu ngeen taseen te yéefar yi bu leen daw mukk wa maxallu duxooli safinatil barri bérébu tàbbi gaalu jéeri ga nag gaalu jéeri mooy saxaar jéeri mooy suuf sëñ bi bu tuddee safinatul barri da ci jublu gaalu jéeri ji muy saxaar bu nee safinatul baxari jublu ci gaalu géej muy gaal gi nga xam muy dox ci géej ga lañu waxanteeg moom mooy yaa ayyuhal lazina yéen ñi nga xam ne amanoo gëm ngeen isa laqitum dem tase ngeen ak fi atan ab kuréel pas butoo sax leen wasgoro te ngeen tudd allah yàlla kasiran lu bari nee na sëñ bi ba muy dugg saxaar bàyyi ko Luga di wuy ji Ndar lii la yàlla waxanteeg moom ne ko yéen day ne ngeen gëm ngeen kon nag bu ngeen taseenteeg ab kuréel ci yéefar yi na ngeen dëgër te tudd yàlla dëgërloo yàlla ndax yàlla dimbale leen xeetali leen wa maxalul baxri bérébub géej gi nag ila samaani hijajin ba ci juróom-ñetti at ila xalil ndare lu néew lu manque ñett lañ fa waxanteeg moom mooy yaa ayyuhal lazina yéen ñi nga xam ne amanoo nee ngeen gëm ngeen xaatiloo xeex leen ak al lazina ña nga xam ne yàlloo nakum danañu sësëg yéen nal kuffaari ci ay yéefar neena bi sëñ bi àggee ca fañ ko yóbbu ca géej ga te yàgg fa lool juróom-ñetti at yu manqué tuuti la fa yàlla waxantee moom ci alquran mooy yaa ayyuhal lazina amanu qaatilul lazina yalunakum minal kuffaar yéen ñi gëm yàlla xeex leen ak ñi sës ci yéen ci ay yéefar mooy bay da ngay tàmbalee sa wewu tànk kon tàmbalee na jihaat ak ñi nga xam ne ñoo sës ak yéen ci yéefar yi kon nag sëñ bi ati géejam yépp jihaat ak yéefar yi rek la woon wa maxallul qudoomi waxtu ñibb si woon nag lañ waxanteeg moom moo di dañ ne yéefar ya wa intaxoo doo ndeem dellu ngeen ci di xareek moom naawut nu dellu ci dimbali ko loolu suñu boroom moo ko waxan yéefar yi màkka yi ne leen bu ngeen delloo ci di xare yonante bi itam nu dellu ci dimbaleet ko rek mu gañe leen li ci topp nag wa in xuttum ndeem dellu ngeen xuddu naa nu dellu suñu borom da ko waxante woon ak yahood ya ci wa in xuttum dem dellu ngeen ci lu bon xoddu naa nu dellu ci mbugal leen kon sëriñ bi bi mu ñibbisee suñu borom daa waxanteeg tubaab yi doonte dégguñu ko xamuñu dara ca loola ne leen ah def ngeen seeni pexe te dara sottiwu ci ngeen delloosi ko bu ngeen delluwaatee ci di ko fexelaat ba tey mu delluwaat ci dimbaleeti ko rek moom sunu jaam bi di liggéeykatu sunu yonante bii wa maxallu daaril mannaan waxtu ak si daaril mannaan nag may béréb bu daaril mannaan daal ba fa sëñ ba nekkee ñu waxanteeg moom ne ko fa in ya'tazalookum dem beru nañ leen falam yuqaatilookum te xeexante wu ñëw yéen wa alqaw te ñu sànni ilaykum jëme ci yéen asalaama ak juboo ak wa in janahoo ndéem jeng nañu li salmi jëm ci juboo ngay wax maarloo ci wolof wala maarloonte faj nax na nga jeng laxaa jëm ca moom juboo ga wa tawakkal te nga wakkirlu xalallaahi ci yàlla bi sëñ bi ñibbisee nag ba daarul mën naan gee ca tuubaa fekk fa la maam Ceerno Birahim nekkoon te laata muy agsi ñu defal ko fa kër ma agsee foofa nag su boroom waxanteeg moom laaye bii ne ko daa mel ne sa noon yi dañ laa beru jamono yi moom nekk ñu di jéem a léew toog yow mel ne kuy wut jàmm kon nag biñ dee wut jàmm daal yow it neel tekk di leen seet ba xam nu ñu def rek te wéeru ci man yàlla man sa boroom wa maxallu gànnaar bérébu gànnaar mbaa nga ne waxtu gànnaar wa ñu ne ko laa xujjata déet ak dàggente bay na naa nekk suñ diggante wa bay nakum ak seen diggante lii ñeel na ma xamal yi sama jëf wala kum ñeel na leen xamalukum seen jëf antum yéen bari oona way set ngeen mimmaa ci li nga xam ne